dafa am loo xam ne président dafa ko soxla wax ceeg man xëy na sax wax ay secret du yoon bi ma toogee fii léegi ki ma doon échanger ay message président la mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp mi ngi leen di ziyaare di sàkku ci magu parcelles yi ñaan lu jëm ci réew mi ñaan yàlla woyofal ko yenn bi ñaan la nga xam ni dénk nañu ko ci fii ñu jëm ci élection yi di ñëw yàlla may ñu ci ndam ñun nag lépp lu président def ànd nañ ci d'accord nañ ci mais jàppale leen ma fi mu nekk nii ñu fexe ba njabootu parce Parcelles yi doon benn bu ñu doonul benn poussière bari rek mais yéen ñi nga xam ni ñun ñoo tax ñuy lig ñuy lig yéen a tax ñuy liggéey mën ngeen ci bañ a am lu leen neex ak nag ku fi mën mënti nekk li ñuy may jàmm mooy ñu ñëpp ñu doon benn lu ñuy may jàmm mooy ñu fàtte suñuy bopp lu ñuy may jàmm mooy ñu wàññi ay calcul ndax def dara mu yegg mel ni ko bëggee bu amee rek xamal daa soob suñu borom amul kenn nag ku fooree noonu li olo xale yi di wax ku aayee noonu lépp loo xam ne ci nit la jëm nga ciy liggéey nga def ci say calcul jiital nit ñi boo ko defee yàlla mën na cee defal sutura mais boo ci laxase sa intérêt kese kese yàgg-yàgg di nga gis fan bi parce que doomu adama yi kenn du leen kon ma leen di nuyu di leen wax ni am na waxtaan yoo xam ne dinaa ko def ak yéen jëm ci parcelle jëm ci Dakar mais du doon ci format bi dina fi ñëw recevoir par groupe deux trois quatre ndax am na liggéey boo xam ne ci unité yi lañ ko war a def am na liggéey boo xamante ni ci kër yi lañ ko war a def am na liggéey boo xam ne dañoo war a toog ñun ñëpp waxtaanee ko su ma nee ñun ñëpp nag. maire bi ci la bokk am na ci cër du mag ko jox yàlla moo ko jox am na ci cër ñeneen ñi nga xam ne aussi ñu ngi ci yeneen am nañ yeneen cër ci lañ bokk honorable député Badou Diouf mbaacoo ngi fii Ndeye Diaw Mbaye Ndiaye bu nekk dañuy wax rek cëru cëru état loolu tuuti na ci cër yi Parcelles Assainies war a am mais la ñuy may nag cër yi ngeen bëgg mooy ñu ñëpp ànd doon benn ay boroom xam-xam a ngi fi ñii mën nañoo nekk directeur ñii sax ñu ngi liggéey seen liggéeyu bopp war nañu mën a dimbali ba seen liggéeyu bopp boobu ñu am ci loo xam ne dinañ ci mën a dimbali ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir Parcelles Assainies loolu la président bëgg loolu la ma président sant te ci loolu lay dox du yomb nag. ndax ni ñu soxlaa noonu la suñuy morom soxla ni ñu soxlaa ñii soxla it ay doomu réew mi lañu mais nañu fexe ba ci biir parcelle li fi président bëgg ñu am ko nañu fexe ba ci biir ndakaaru li fi président bëgg ñu am ko waaye nag na am ci jàmm ak salaam ndax ñi ñuy jàkkaarloo it ay doomu réew mi lañu buñ leen tegee lu metti it daanaka suñu dëkkandoo lañ ko teg même bu beaucoup ñu yoon même bu nekkee dañoo jàpp ne dañoo réer kon dañoo war a doon benn fexe ba njaboot gi ànd fexe ba njaboot gi solo ëpp fi solo mais la ñuy may li ngeen bëgg mooy ñu ànd doon man loolu la président sant message leen livrer du meeting du assemblée générale danañ ko def nag mais duñ ko def tant que waa Parcelles Assainies yëpp jubóowuñu man loolu laa bëgg dama bëgg bañ koy def rek ak fu ñu ko mënti defee ci biir parcelle na ñëpp ànd doon benn